Cheikh Moustapha neexa àndal dal nga xel aman nga ruuy fi àgguloon jébbal sa baay Mbàkke asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ginnaaw nuyoo boobu ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nuyu bokki jullit yépp bokki taalibe yëpp soppe yëpp soppe alxuraan yëpp di tukkee ci Serigne Mbaye almuridul Habib Serigne Mbaye Longor saaxibu maktabati nuur lil baxsi an xaqaa'iqi al umuur wa rais ahbaabi al Mustafa fi xidmati xadiimi al Muqtafa sallallahu wa sallam alayhi llahu fi al aali wa sahbi wa man walaahu di leen nuyoo fii ci daaru xudduus daaru xudduus bokk ci këri sëñ Tuubaa yi yi mu sancaloon boppam Cheikhuna Ahmad al Xadim moo rëdd kër gi sanc ko dëkk fi 1888 la ñëw Tuuba muy gox bi muy ab dik bu ko suñ borom digoon mu nemmi ko ba gis ko def fi yenti kër gannaaw bu mu jógee daaru salaam gi mu njëkk a sanc yenti yi mooy Touba ak daaru daaru Minan daaru Quddus ak daaru Rahman yenti yi yu sëriñ bi cité la fu bari ci ay xasidaam muy kër yu nekk Touba gannaaw daaru salaam euh, bii nag bi mu sancee Touba ba noppi muy kër gi jumaa ji nekk tey fii mu nekk tey moom muy fi jumaa ji kër googu la tuddee woon Touba ak la ko wër lépp sanc ci soowam tuddee ko Daarul Minan sancaat fii nu ne tey tuddee ko Daarul Quddus sanc ci soowam tuddee ko Daarul Rahman kila la sëñ bu ne tey euh, fii di Daarul Quddus nag juróom-ñaari at yi mu fi am moom sëriñ bi la ci ëpp fii la ko am ci kër gi rawatina la ca mujj ci at ya ca mujj fii la ko féete woon daa nemmiku ci kër yi ci des fii la defe i'tikaaf bu siiw ba ci 1895 ci jàkka jii ci sun sunu wet sunu kanam fii la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñoo jëhran yaqsatan laa manaaman ànd ak saxaaba ya ak ahlu badrin mooy lieu du pacte fii la moom pacte bu boobu yi nga xam ne moo waral yoonu géej gi moo waral lépp foofu ci biir jàkka ji la amee ci biir kër gi néeg bii nu dendal muy béyti ab néegam la woon mu fonkoon lool sëñ Daaru Xasan la ko defar loo woon daan ko ci liggéeyloo ci biir néeg bii di ci liggéeyal boppam ci ay xalwatu ak i ibaadaat ak i diyaale euh, yeneen bërëb a ngi fi ci kër gi mën nañoo wax ne ñeenti bërëb mooy yi nga xam ne ñoo fi gën a euh, tegtalu mën naa dem bay juróom bay juróom benn bay juróom ñaar waaye baytullahi mi ngi ci kër gi muy nigub yàlla mooy jàkka ji baytu rasulillahi mi ngi ci kër gi mooy mawlid bi mooy liwaawul xam ne bii ne ci pénc mi te fa la ñuy gàmmoo di fa tagge yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baytu Cheikhil Khadim moo nekk nii ci sun wet ñu ko bayti fii la bagage boppam yi nekk lu man ñeent fukki gaal yu tofal ñi ngi ci biir ak yecene ak baytul Qur'an mooy daaray kaamil néegu alquran moo ne nii sës ak bayti di néegu alquranu karim kon ñeenti ni yooyu moom mooy ñeenti kenoy kër gi ah ci suñ gannaaw am na bu ñuy wax bayti maqaama ndiggante moom it euh, melow néegu wéetukaay la koo dégg baatu ndiggante danga xam ni ci mag ñi daan jublu waaw la boo xam ne daawul bari ñu ko fanaan fekk ba ci Cheikh Moustapha ba ci suñu jamono yii rek noonu la kees googu demee am na baytul xalifa ki fi nekk Cheikh Moustapha këram muy néegam bi muy ne moo ne ci wet gee waaye am na baytu diyaafa gan ñi fi ñëw am seen kees bopp boo xam ne fa lañ leen di dalal kon juróom-yaari kees yi mooy yi ci kër gi. daaray kaamil moom lañ fas yéenee yee salaat ci ndigalul Cheikh Ahmadul Muxtaar ci kilifa kilifteefu Cheikh Mouhamadul Muntaqa ànd koog bokki taalibe bi yëpp muy néegu alxuraan bi daaray kaamil daaray kaamil muy néeg bu yàgg boo xam ne. dafa am ay mag yoo xam ne sëriñ bi moo leen tànn naka jekk fu mas a ne ñu ne fi wetam mu defal leen seen néegu bopp ñu fay wàcce alxuraanu karim benn ci suba gi suñ xëyee tisbaar benn te takkusaan benn bu ajuma jotee ñu jàng juróom-ñaar loolu di maanaam bis bu set juróomi kaamil juróomi kaamil yooyu par bis mosul jënn ci wetu sëriñ Touba juróomi kaamil yooyu am na ci mag yi ñu wax ne mbóot ma mooy juróomi waxtu julli yi la koy booleel ngir jaamoo ko suñu borom ànd koog taalibe yi julli gu mos julli ànd naa ko kaamilu taalibe yi ak ay jaamu yi boppam gis set mos a bu dee ca Ceyeen ja ca Njaareem ja ak fu mos a ne ba ni Cheikh yeesalaati kër gii daal di yeesalaat daal di ci saasa ba booba léegi ñu xam ci mag ñu mag ñun xam. jamono Cheikh Moussa ba léegi sëñ euh, sëñ Bas Kayre moom sëñ Momar Kayre sëñ Basir Lo imam way jur sëñ Moussa Bachir Lo euh, magu Daaru Xudus ñi daal ñi nga xam ne ñin nañ leen ñoom ñoo doonoon ñoo daan yor kaamil bi di xëy si di gont si mës a génn nag ba fi ne nii am nañ mag ñu ko ñu téye loola di fi xëy si di fi gont si di wàcc kaamil yooyu bi bi nu amee ndigal ci Cheikh Mouhamadul euh, Muxtaar di xalifa bi mu mu ne soppee Cheikh Moustapha yi noonu lañ ko jagleel ngir nu war a yeesalaat liggéey bi muy ahbaabul Moustapha euh, jot ci ndigal li daal di wër njabootu Sëñ Tuubaa gépp njabootu Cheikh Moustapha yëgal leen ko xamal leen ne Ashur euh, yow ma bisu Kazu Rajab la ñuy teg xeer wi Cheikh Mountakha ci suba sa rek la fi yebal ndaw muy sëñ Cheikh Mbacke Abdou Latif mu jox ko million ne ko tàmbalee na ko ci liggéey alxuraan daari kaami jooju ñuy defal Cheikh Moustapha di ko defal sëñ ci alxuraan soppe yi di ko def soppe Cheikh Moustapha te nee moom Cheikh Mamadou Mountakha du nangu moos kenn di ko jiitu ci soppe Cheikh Moustapha liggéeyu alxuraan it foofa la ca nekk fu koy defee rek moom mooy jëriñ ja moo tax mu daal di fay jiital addiyaam barkeeloom muy tegu xeer wa sëriñ Ahmadou Moukhtar yabal sëñ Moustapha Matiley mi xalifa guy mbind xalifa sëñ Baara mu ñëw teg xeer wi keroog Kazu Rajab ànd koog sëñ Moustapha Ndiaate mi porte parole am ñoom ñoo fi teew teg xeer wi bàyyi ko nag nu tàmmali di ko liggéey vingt huit millions nag mooy devis bi nga xam ne mooy li li mënta ñàkk donte amul yemukaay ndax taar ban ko bëgg a taaral du am yemukaay waaye nag maquette bi moom ku ne gis na ko mu ngoog noonu la fas yéene mu mel ni euh, kon liggéey la bu barkeel boo xam ne nun wérante wun njëriñ la ci baatin ak ci zahir wérante wun it ne sëñ Tuba alxuraan ñim ko ñore dara ñoree ko noonu ci àdduna ku koy liggéeyal ci alxuraanu karim it na nga koy ñore xam nan loola yëg nañ ko ci zahir yëg nañ ko ci baatin noo nga ca it di ci woo ñëpp ku ci soxla yëg ne bokk nga ci nu la ci woo ku yëgul ne bokk nga ci nu la yëgal ne bokk nga ci di la ci woo loo mën nga def ko ci ci sa xalal feer xeer xaalis euh, lépp luy rafetal ak a jëmmale ak a mottali naal wu mel nii ku ko am woo nañ la ci waaw am na waaw ku ci bëgg a jëf sa yéene euh, boo ñëwee bayti gii rek fekk fi sëñ daam Ndiaye bëgg bamba mi ne ci béyti yor néegu sëñ Tuubaa bi loo ko jox mu yegg si wala nga dem ci daaray kaamil ji léegi sëñ bii da leen a toxal fan yi ci béyti maqaama ci biir daqaar gi fii la ñuy jàngee alxuraan ji ndax moom si Ahmadul Muxtaar moo ne ma néeg boobu lenn lu fa gën a yàlla jàng alxuraan xamu ko kon nañ fa nekk ba keroog liggéey bi àgg ñu door ñu bissiwaat ci seen néeg foofa ku leen fa fekk Ibrahima Cissé ma fa ne loo ko jox dana yegg si ci liggéey bi dana ci tàbbi naka noonu euh, jëwriñi kuréeli ahbaabul Moustapha yi ci dëkk bi ku ci xam kenn loo ko jox dana yegsi ci liggéey bi kuréeli yi daaru xudóos yi président ya ko jiite loo leen jox dana yegsi ci liggéey bi euh, imaam jàkkay daaru xudóos sëñ si la imaam loo ko jox ne ko daaray kaami jël jëm dana yegsi ci liggéey bi sëñ Bay Longoor Bayti ñii di jëwriñu liggéey bi ku dajeeg moom walla nga mën a jokkoo ak moom loo ko jox dana agsi ci liggéey bi lu mel ne Orange mone Tigo Cash wala jokkoo leer lu ba xam liggéey bi nu mu demee ku ko jaare ci numéro yi di 77 77 177 99 11 wala 76 699 66 44 numéro yooyu boo ci jokkool wala nga dugal ci ci numéro euh, Tigo Cash wala Orange Money dana yegg si ci liggéey bu tedd bi waaye numéro compte banque gis muy banque islamique du senegal compte bii ngeen di gis ku ca dugal sa wërsëg dana yegsi ci liggéey bi Ecobank yit compte bii ñu leen di won ku ci dugal sa sa alal sa xalal dana yegsi ci liggéey bi loolu daal moom lañ leen doon leeralal di fàttali ne sëriñ bi euh, dafa waxoon ne liggéeyal alquran ak xadis barke bi ma fi bàyyi ak ngërëm li ci lay saxe waaye du ay xalal wala wurus wala xaalis nee na kër-kër yi ci alquran ak yëngu jëm ci nee na ca la denc li fi bàyyi bi xidmatil kitaabi wal xadisi tasbutu laa bi dahabin mawruusi loolaa may tawfiixi ahbaabul Moustapha am ndimbal ci daraja xormay Cheikh Moustapha mi nu sopp ngir am cërub féetewoo liggéeyu daaray kaamil kon Cheikh Mountakha ubbi buntu ba xalifa sëñ Daaru Xasan Ndiaye toftal ca lim ba mu ci toftal ànd ak njaboot sëñ Daaru Xasan gépp wax ne dinañ ko ànd ak ñun ba mu àgg xalifa sëñ Maxtaar Diop Cump xalifa sëñ Fallou Sarr ñoom ñëpp yónnee nañ fi seeni i hadiya daayira yi tàmmal lu mel ne waa Espagne yónnee deux millions deux cent mille yu tofal Palma de Mallorca waa Portugal euh, waa Brésil ñoom ñëpp kenn ku nekk jot nañ lu accès gun tàmmali dugg ci liggéey bi sëñ daam bëgg Bamba mi téeméeri junni ak juróom fukki junni jotagun na ko sa Ibrahima Cissé mi ci daare Kamil jotagun na lu ko jege manit maa ngi ci ay participation versement yëpp mi ngi yegg si soxna ma am mu soxna may munatu Mbàkke jiite jigéen ñi moom it am na lu fa daje yooyu yëpp nu ngi koy collecté tàmmali nañ liggéey bi it gis ngeen ni ñu tojee li fi newoon ba war def fondation ci biir ndax fasuñ ko yéene mu génn ndax liggéey bu mag ñaa kon nañ ko dugal dugalaat ci biir def ko muy fondation sëkki ko doon a jël lii teg ko ci kawam muy liggéey bi sëñ Bamba nag nee na woon allahuma yaa quduusu ci kër gi la ko waxee woon de salli wa sallim wa barik ala man nawaytu an abudaka bi xidmatihi li wajhikal karim fi Touba wa fi daari salaam wa fi daari minan wa fi daari quduus wa fi daari alquduus daal ne far daal ne farraxani salaam wal manaanu ta fi xabaaqin indahu ljinaanu noonu la toppee arafi fii daaru quduus yi ba mu jeex mu ne waccal tilka duyoora maxruusatan wa macsuumatan wa mubarakatan wajzi anni xaadimiha loolu moom laan bëgg a leeral wajzi anni xaadimiha bil binaa'i wa naqlil amtiati xayran yaxbituhum bii xayruhum sëñ Tuubaa nee na yow sama borom ñi may liggéey ci kër yooyu yii nag ma fayal ña ma fay tabaxal di ma ko tabaxal di ma ko dundalal nag ma leen fayal yiwuñ leen di ñee bu ñee kenn te it ku deful na leen ñee fokk ci zahir ak ci baatin nañu am luñ lamboo loo xam ne dees na leen ñee mooy dees na leen iñaane ñee ci wolof mooy iñaane mooy koo xam ne am na lool da koy mel ne da ko iñaane mooy koo ñee moom Sëñ Tuubaa na képp ku yëngu ci kër gi ci tabax ak dundal na ma ko joxal luñ koy iñaane wala luñ koy ñee eh, yaa mi fi lxaali wal maali adduna ak àlaxira nag fi lxaali wal maali wajzihim anni wa an anfusihim jazaan yasiduhum raxbatan fi xidmati na nga leen di selal seen xolit di fay yiw woo xam ne day tax su ñu gën a sawar ci liggéeyal ma saa su nañu gën a sawar ci liggéeyal ma nee na it na nga leen fegal bis pénc ba lu leen di leen di tiis wak fi lazina xat banaw aw naqalu am ti ati yowmal jawa maa bis bisu naqar baak tiis wa ñoom buñ ca gis dara ca tiis ak naqar lii sëñ mag bi def na ko ci mbindam mi ci kàggoom yi ñeel mbooti kër gi ah yeneen yoo xam ne comme xasida ga mi tudde daaru quddusi li rabbil alamina mursil ahmada fooy jóor na fa ay ay fagguteef ñeel ñiy liggéey ci kër gi ak kër yi ni mel kon loolu moo doonoon lépp di sant ak gërëm Cheikh Ahmadul Muxtaar kilifaam Cheikh Mouhamadul Muntaqa ak Serigne Moustapha Matiley ak mbokk yu tedd yi nga xam ne mooy jëwriñu kër gi Serigne Cheikh Madina ak ay rakam sunu général sëñ Moustapha Mouhamad ak ay rakam waaye yoonu murid wépp mu ngi leen di ziar bu baax di ànd ak ñoom liggéey bii nu ñu jëwriñal ci kàttanu yàlla xurmay Sëriñ Tuubaa daraje Cheikh Moustapha al Karim wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.